السلام عليكم مبوك السنغالي نك في تي ايطالي ا يني تي راديو ديفرال سونو بوب خنا رك ني نيو جوت لي لين بن خاو خاو خاو بو دال سونو بوك سنغالي من نخا من نك نك نخار موي سونو بوك مومو تاي فوف تي راغوزا فني واخ بلاج بني واخ مارينا دي راغوزا moom dafa euh, tey gaañu ci géej gi duggoon doon fay farlapp mu ngi tudd nag Samba Kandour euh, presse bu Ragusa ñu ngi wax ne tunisien la waaye du tunisien ndaxte ñam dëkkal foofu ci Ragusa ñoo oo di di ma jox jox information yi

Euh, mu ngi dëkk ne réfugié la nag mu ngi dëkkoon ci centre euh, euh, SPRAR mooy centre bi ñuy denc réfugié yi demandeur d'asile yi bi nekk foofu ca Chiaramonte ñu koy wax Chiaramonte fi kon nag xanaa rek di wax ne képp koo xam ne xam nga ko Samba Kandour la tudd mais avant muy ñëw foofu ci ragosa mu nga nekkoon Catania xanaa rek ñu ñaanal ko jàmm ñaanal ko mu euh, ñaanal ko mu yegg ci si yàlla def wax dëgg yàlla euh, muy mbir mu métti nag xanaa rek di artu suñ mbokk yi parce que gis nañ ne chaque année wax dëgg yàlla dina am sénégalais bu euh, gaañu fii ci lapp ci géej gi ci géej gi chaque année nag wax dëgg yàlla mu am su ngeen duggee ci Google su ngeen jëfee sénégalais annégato rek da ngeen gis ne ana gu nekk dinañ ci si presse bi euh, dina ko wax daaw amoon na daaw ci amoon na presque chaque année daal mu am kon nag xanaa rek ñuy wax suñ mbokk yi artu euh, ne wax dëgg yàlla géej soo ko mokkalul euh, dang cee war a def ndànk ñaareel bi moom dégg naa xam naa dafa am dugg bay mm, nuru na woon nag ku mën fee parce que nag moo waa centre ba ñoo àndoon waa centre ba nekkoon 14 personnes mais dafa mel ni bi mu duggee ci géej gi dafa am lu ko doon métti euh, mu mënatul continuer nit ñi di ko seet ba au sauveur yi ñi ñi ñiy sauver nit ñi ci géej gi ñooñu ba ñu umee di ko seet fekk mu feeñuwaat feneen bañ ko génnee respiré tul malgré tentative de sauvetage yi ñu ci def euh, dafa mujj génn àddina xanaa rek euh, di ko ñaanal àjjana di ko euh, di leen ñaan wax dëgg yàlla mbir mi su ngeen ko mënee ku ko xam euh, def na numéro téléphone bi nga xam ne mooy centre ba képp ku xam Samba Ndour Samba Kane Ndour waaw daara la dëkk mag la nag parce que 62 la juddu manaam presque am na 58 ans waaw xanaa rek di wax ne képp koo xam ne xam nga ay mbokkam euh, nga jéem a jox numéro téléphone centre ba. mu numéro numéro téléphone bu centre Chiaramonte Gulfi noonu le centre ba tudd la tudd Chiaramonte Gulfi numéro téléphone bi nekk 09 32 92 50 24 ma bamtuwaat ko 09 32 92 50 24 yàlla na ko yàlla yéexee eh, yéexe ñu xare ko àjjana jërëjëf mbokk yi eh, seen xarit Baye Diouf ci rajo defaral suñu bopp ba beneen yoon jërëjëf.